ñu ñëw fekk nag ñu jàpp suñu ustaas bi nga xam day jàngale alxuraan su ma ko waxee nag xam naa déggin bi du neex si wax bi waaye dañu ñëw dafa mel ni ñun dafa mel ni Seydina Mohamed lañ jàpp tëj ko bëgg koo dóor ndax ku ne xam nga ku ne bëgg nga Seydina Mohamed rek boo ne bëgg nga ko sallallahu alayhi wa sallam da nga war a bëgg jàngal ko alxuraan ndax rasulullah sallam mu ne mu ne ñi gën ci yéen moo ñu jàng alxuraan bu noppi di ko jàngale kon man ñeme naa sañ taxaw waat ni kii moo gën Macky Sall ndax Macky Sall jàngu alxuraan jàngale ko saatu ala lay wax jàngalewu ko man ñeme naa waat ni kii moom a gën man ndax man jàng naa li ma jàng mën julla man te jàngalewu ma man mën naa sañ waat ni Sénégal bu ñu ne bu dee cent sénégalais la mën naa ni soixante quinze wala soixante quinze pour cent bi jàngalekat alxuraan yi ñoo leen gën parce que ñoom bari wuñu kon bokk na si li tax jullit bu nekk xam ni saa boo jugee ne ashadu an laa ilaha illallah wa an muhammad rasulullah nga ni yow da ngay seere yàlla kenn la te rasul mooy yonentam mooy diine alquran mooy Macky Sall nag programme am daf cee bokk toroxal ak xeex diine wane na ko ci Charlie Hebdo ñuy caricaturiste na sallallahu alayhi wasallam di ko ñaawal mu dem ca dara fekk ay ustaas yu waarate ba léegi ñu ngi koy defaan ci télé bi di defaan Macky Sall mm. wane na ko ci ba bu ñuy mujj sax France bi muy mujj ne dañuy blasphème maanaam dañuy ñàkkal fay di lépp loo xamante ne kat day day day day taxawal diine rawatina suñu sang bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam Macky dem fekkiwaat waa France ñun ñuy woote fii Obélisque wuyu nag naqar am tiis bu metti amit yëgal bu ñu yëgal sénégalais ci citoyen parce que dina bi l'islam li ko tax a eggi fii ay yambar dañ koo yeggalul fii ña ko sos bu ñu nekkoon ni ragal mbaa ay yambar mbaa ay yaafus l'islam du egg si fii loolu il faut ngeen xam ko il faut ngeen xam ni yéen santuñ leen dara dañu leen ñii dañoo xeex xare ba dara ñii ñu rey leen seen biir néegi sëy ñii Serigne Touba dañ ko yóbbu fu ne ndax diine bi yéen waaraatekat yi santuñu leen dara lu dul ngeen toog ci rajo yi wax rek li diine wax yéen da ngeen a fekk lépp yemb loolu sax mu ñemewu leen ko def ñemewu leen jàkkaarloo Macky Sall ne ko mu bàyyi daara yi muy song ñemewu leen jàkkaarloo Macky Sall ne ko mu bàyyi sëriñu daara ndax man pour man ku laal sëriñu daara Sidna Ahmed nga laal salaa salaam pour man ku laal alxuraan Sidna Ahmed nga laal salaa salaam léegi nag problème mooy ñoom li ñuy maanaam li wax ni moom la ñuy sikkee daara yi li ñuy wax ni moom la dalee ne zéro enfant dans la rue am ay budget 15 milliards 20 milliards 50 yi jox leen ko ñoo dañuy xeex xale yi nga xam ñooy yolaan ci mbedd mi ñoo dàq yàlwaan xale ñoo gën a bon xale yi te li ci metti mooy ñooñu ay franc-maçon lañ gëmuñu yàlla gëmuñu yonent gëmuñu Serigne Touba gëmuñu Serefal gëmuñu dara loo xam ne day jëm ci wàllu diine respecté wuñ ko toppuñ ko ba pare yamuñ ci loolu ñu ñëw di song nag suñu sëriñu daara yi ñëw di topp suñu ndongo yi suñu dongo yi jàng alxuraan suñu doom yi leen tëj di tëj sëriñu daara di leen dóor ba di leen gaañ ñun ñu ñëwoon pour naqarlu loolu di leen wax ni nag du yem foofu du yem rek si ñëw taxaw wax déedéet ñun nitu dëgg valeur dañu programme benn bés boo xam ni bés bu mag lay doon date bi dinañ ci dellu si xam naa ne ak média bi parce que ku ñëpp jiitu loo xam mais du yàgg dans une semaine deux semaines dañuy def daje bu mag boo xam ne récital de Coran lay nekk ñuy woo bépp bépp sëriñu daara ak képp ku mokkal alxuraan même su fekkee benn saar nga mokkal sax nañu daje woon fële ca place Sidy Lamine Niass obélisque ma tuddee ko place Sidy Lamine ñu naan comme place mm-hmm. ñu ñëpp ñu woote ku nekk indi sa siyaara indi sa masque indi sa gel antiseptique ñu respecté distanciation yi ñu toog fa ku ne jàng alxuraan ñu naqarlu wane suñu bopp wan Macky Sall ko danga jiite réew moo xamante ni seen la nga la bëgg a wàññaar seen loxo ñoom gëmuñu loola. wan ko ni ko ñun sénégalais yi bëgg suñu doom jàng alxuraan ñun ñi nga xam suñu doom yi ñooy jàng alxuraan di yalwaani parce que li tax xale i di yalwaani mooy état bu jëloon 15 milliards mbaa 20 milliards yi muy jël def ko ci daara yi kon daara yi du ñu yalwaani daara yi kokki 4000 xale ñoo fay jàngee 4000 laa la waxuma la 400 de 4000 xale alxuraan ay xale yu ndaw ñooy jàngee daara kokki am réew boo ci génnee 4000 xale la fa deseti kon lan moo tax Macky Sall ak nguuram gu bon gi ak njiitam yu bon yi ak Ndeye Saly Diop Dieng ak Joxombaay Juuf xam nu ñu ko waxee noonu ñoom ñoo ñu jóg na dañuy xeex diine lislaam ne dañuy xeex dañuy xeex alquran xaalis bi nguur gi di sàcc ñu koy fowe ñu ko jël subventionné daara comme école école école école française école française ni mu mel buñ ci taxawoon organiser ko daara organiser wu loon waaye déedéet ñun ñoo réew moo xam ni 95 pour cent de musulmans lañ 5 pour de chrétiens ñun ñëpp dañoo gëm julit ñoo si ëpp te juliti alxuraan bu ñu bëgg seen doom yi jàng ko alxuraan bu ñu bëgg jàng amuñu sanction ñu taxaw jàkkaarloo nguur gi ne ko bëgguñu français bi mooy jiit français bi soo ko yegsi loolu nag ni koy ko waxee sànq sans autorisation amul dara dañ dem nag def déclaration normale parce que dañuy ñaanale sax yàlla jëliwaale fi mbas mi mm, ndax mbas mi ñoom seen yu bon yooyu ñu la alxuraan rek ko fi indi bis boobu nag mooy bis boo xam ne ci lañ leen woo ñoom ñëpp ñu ñëw ñu toog fa wane suñu bopp bàyyiwuñu mag bàyyiwuñu jigéen bàyyiwuñu góor bàyyiwuñu xale baaw daara yi bàyyiwuñu ñu diine yi ñu kilifa diine bàyyiwuñu kenn ndax ku dóor kii Seydina Muhammad nga dóor salaa salaam boo la ko bëggee dégg dëgg la suñ ko bëggul dégg ko mokkal ñoo koy jëmmal alxuraan ñi ko mokkal ñoo koy taxawal mm. alxuraan koy xeexal ñi ko mokkal ñoo koy dundal fi xam leen lool te muy dëgg la mooy kilifa diine bu nekk ci daaraam moo xam mi ngi ci këram moom taalibe yaa ngi koy wër ndax xam ni Sénégal suñu président Macky Sall mi ngi toroxal alxuraan ci dëkk bi te ñun duñ ko setaan nañ jàkkaarloog moom nag daje bi nag incha allah obélisque lay doon fële ci place de la nation ñun ñu tuddee ko waa ñu tuddee ko place Sidy Lamine Niass hmm. incha allah rabbi ci seen biir ñëw ñu ngi nuyu nag mbooleem senegal di nuyu mbooleem kilifa diine di nuyu mbooleem euh, site internet ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci ay télévision di suñu frère di Abdou Karim Xurum Xaq mi nga xam ne moom it macha allah tabaaraka wa taala ku ne gis na taxawaayam ci réew mi ci wàllu sénégalais yi nekkul daara kese mais ci taxawaayam ci sénégalais yi. ah li xew depuis jeudi passé fii lañ toog ci daara ji yor suñu kurus di virdo am yenn ci xale yi daw si ñëw na ma sëñ bi jàpp nañ ay ndongo. ndongo yañ jàpp sama ndongo cousin la ak sama sëriñ bi nga xam ne ñun bu ñu doonee tuut tànk bokk na ci ñi ñuy doon yar fii muy sëriñ Ousmane ndongo yooyu biñ leen jàppee ñu ñëw woo si ma ma ànd ak benn ñaari xale yu mag kenn ki mu ngi tudd Abdou Aziz Ndiaye kenn ki tudd Dame Thiam ak yenn xale yu ndaw bi ma demee ma xool ci biis bi ubbi bunt bi fekk bunt bi ñu ngi ko ferme gis naa fa benn mag mu bejjaaw nag du mu tudd turam xam ngeen ko yéen Sénégal dégg ngeen ko ci organes yi muy wax a ah, bi ma ñëwee fekk ñu tëj ko ma wàññeeku dem ci nga xam ñi nga xam ne ñoo téye xale yi xamoon na ay police lañ parce que ay civil lañ ñu tuddee brigade de mœurs bi ma ñëwee na leen da ngeen di bàyyi xale yi ñu ne si kan yan raison lañuy bàyyi xale yi ma ne ñii suñu ndongo lañ te fii ñu nekk daara dëgg moo fi nekk li koy wane mooy jàng xale bii ngeen gis sànq parce que man fi laa jàngee alquran fi laa mokkalee alxuraan fi jàngee xam-xam fi laa amee bépp diplôme bi nit di am ci réew mi ba pare yoroon ay opportunité yu bëri ñu jox ñu daara ji kilifa gi ñu jàngal alxuraan wàcc liggéey fin 2019 ñu jox ñu daara ji ñu ñëw yore daara ji kon ci loolu lañu ñu daara ji li ñu wax nag li amoon au delà mooy bi ma waxee euh, waa ji mu ne du ñu jox xale yi daam moo taxaw te euh, ki nga xam ne civil la na ko xale yi di ngeen ñu ko jox ci nii wala ci nele xale yi di ngeen ñu ko jox nii wala ci nele léegi nag euh, civil bi tàng poñe poñe poñe poñe daam ak Abdou Aziz commencé nag di ko dóor toog naa di ko xool mais dóor na ko lu mat 4 virgule ba 5 xale bu ndaw nga di ko dóor ay sa loxo ma dox seen diggante ak ñoom ñu dóor ma te yéen ñëpp jàngeen légitime de défense mooy nit ku nekk bu ñu naree toroxal sa njaboot wala ñu toroxal say taalibe wala ñu toroxal ak kum manti doon war nga mën a taxaw kay kay ka nara toroxal sa njaboot boo ko mënee défense nga défense ko boo mënee taxaw ci kanamam nga taxaw ci kanamam loolu laa def ñu dóor ma fayu ñu continuer di ma dóor mën nañ mat juróomi police ba lu ko ëpp biñ may dóor génn nañ dóor nañ ma ba sama bët toj Sénégal yëpp gis ko pistolet gis naa ñu génn ko naroon ko dëbb sama bopp bi seen liif yi wallaahi maa ngi bi may xam ne ñoom ay police lañ mooy biñ génnee seen monot ndar ma monati fekk booba maa ngi sol sama veste biñ génnee monot ba dugal sama loxo ma rocc laa xam ne ñi ay police lañ ginnaaw gaañu na ma daw ñëwaat ci daara ji bi ma ñëwee fotow def sama benn ojo bu gàtt yónneeku ko suñuy kilifa mooy kilifa fédération nationale école coranique parce que fédération nationale école coranique du senegal man affaire de euh, religieux euh, euh, relation intérieur extérieur maa ko yore beneen bi daara yi nga xam ne ñooy yalwaan man maay seen secrétaire général président bi mi ngi kaw wax Lamine Fall la tudd di ku mag kon loolu mooy li nga xam ne moo fi xew li fi xew lenn la mooy dañ doon dóor sama njaboot ma doon dox seen diggante ak ñoom pour buñ leen gaañ ñu gaañ ñu gaañ ma far man te lii nag ñaaw na ba ci kanamu yàlla ñaawlu nañ ko sénégalais yëpp ñaawlu ko si kilifa diine yëpp ñaawlu ko rawatina suñu président bi nga xam ne moo ñu yilif yor suñu carte d'identité nationale di voté fii ci Sénégal dëkk fi dëkk ci Sénégal di def lépp loo xam ne réalité la bu nit di def ci ay fay euh, euh, nu mu tudd lempo di fay yi ci war yëpp kon nag li ñuy def rek mooy ñaawlu nañ ko ñaawlu nañ ko ba fa ñaawla yem